il faut d'abord xam nga nit bala ngay sutee benn affaire il faut nga dem ba début bi euh, bon Youssou maa ngi ko xam en mille 2002 lañ mës a gisante physiquement évidemment j'ai grandi avec sa musique mhm. comme tous les Sénégalais muy koo xam ne bu mosaan def concert Louga damay jël li maire bi am yëpp dem paas pour seetaani ko comme tous les Sénégalais yàlla def en deux mille 2002 mu nekk journaliste Jeune Afrique ñu daje euh, dañu wàcc ci avion aéroport Brazzaville bi ñu wàccee ci avion bi mu gis po spontanément moom moom mi gis de man gisuma ko mu ñëw nuyu ma ne ma dama la seetaan TV5 affaire yooyu ñu waxtaan grand bi wan ma vraiment ni ma tisse su ma gisee sénégalais mu nekk fenn dafa def liggéey bu baax damay kontaan tu vois vraiment fekk boobu mu amoon benn festival panafricain de musique ñu toog Brazzaville deux semaines foofu la suñu jaxasoo tàmbale mu amoon benn projet pour créer benn association de musique bu mag ci Afrique bon j'ai parlé à Sassou ndeysaan Sassou Nguesso recevoir ko et puis ñoom ñaar ñu wax ci xam nga mu doon affaire bu grave donc foofu la ñu jàppante donc après ñu seq lu bari nag ah parce que bon daje nañ fu bari ànd nañ fu bari voilà yoo xam ne bon xam waxam du fii après bi ma ñibbisee Sénégal te seen teg TFM di ubbi. Mhm. ma amoon projet Boubacar Diallo ñëw proposé ma un café avec Bouba Ndour d'ailleurs joué ci bu bare bare bare vraiment parce que euh, Bouba dafa am lu xew suñu diggante loo xam ni du sax un café avec ak lu ñu ci jàpp ak yooyu ak ñu ci sonne ak yooyu mais dafa am un jour Viviane génne benn CD bu neex mooy CD boobu bi amoon morse Serigne Ndiaye bi sama jabar xam nga dafa dof ci Viviane moom faa ni moom il faut mu am CD bi ci guddi gi ma woo la nga jël sa oto ñu daje ci wetu five nga jox ma CD bi mhm. waaw loolu laa téye ba léegi waaw parce que loolu dafa rëy ci man daal donc euh, après bon ma ñëw jàkkaarloo un jour génn Youssou Ndour woo ma téléphone mhm. ñu waxtaan mu xamal ma ni daal rafetlu na jàkkaarloo bi ak waxtaan weeg yooyu ma ne ko man sax am naa ci xalaat ñu xalaat waxtaan ci la ñu waxtaanee man ak yow bu baax et cetera mhm. bon bref euh, donc fii sama sama kër la ba pare lu yàgg ba pare mbokk nga ci kër gi. voilà voilà mbokk nga ci kër voilà loolu moo tax. donc ma xamal sénégalais yëpp nii dinaa fi ñëw. Mhm. Euh, pas systématiquement comme ni mu demee nii mais bëgg naa di fi ñëw di.